asalaamualeykum mbokki auditeurs yi ñi ngi am mbégte di leen présenté seen émission bii ñuy wax diisoo ngir aaru diisoo ngir aaru nag théâtre radiophonique la di am ci rajo bi ñuy wax Oxygène FM fréquence bi di 103 point 4 di am ci altine bu nekk à partir de 18 heures ba 19 heures redivision bi dimaas lay am ci 11 heures ba midi numéro téléphone bi nga mën a bokkee nak ci suñu émission bi am whatsapp moo nekk 77 424 94 73 ma baamtuwaat ko 77 424 94 73 ngir joxe say xalaat xalaat yooyu nag ñu mën koo jàllale waale ci émission bi jërëjëf. diisoo ngir aaru Africa Check moo leen ko may ànd ci ak Theatre for a Change ak Google News Initiative asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal jàmm ci émission bi di diisoo ngir aaru nuñ ko baaxoo di def altine bu jot fii ci rajo Oxygène 103.4 FM jàpp ko 6 ci ngoon ba 7 ñu koy tegaat nag dimanche 11 ba midi. diisoo ngir aaru di émission théâtre radiophonique bi ñuy waxtaanee mbirum mbasum Covid 19 ak vaccin yi ki leen koy may muy Africa Check ñu ànd ci ak Theatre for a Change ak ndimbalu kureel gi di Google News Initiative. maa ngi tudd Samba Dialempa ji may ànd ak yéen tey nag ci émission bi di leen ko présenté tey nag mooy juróomeelu épisode bi ñu ci nar a waxtaane Covid 19 ak mag ñi euh, sunu gan di docteur Fatoumata Anne muy socio anthropologue defe naa mooy nag euh, ñi gëstu ci nekkinu askan wi. %e moom %e docteur :fra Fatoumata Anne mu ngi jàngale ci université :fra bu Ziguinchor [r] docteur :fra Anne maa ngi lay nuyu euh, waaw di la dalal jàmm ci émission bi di la nag %e remercier ni nga accepter ñëw ci émission bi waxtaan ak ñun waxtaan ak suñu auditeurs yi %e ci %e mbirum mbasum Covid 19 [r] ni ma leen ko waxee ca njëlbeen émission bi di diisoo ngir aaru Euh, théâtre radiophonique la euh, histoire bi nag euh, di histoire Modou moom ab fecckat la naroon ànd ak ay naataangoom dem tournée bitim réew waaye moom jotul a dem ndax joxuñu ko visa li ko waral mooy moom Modou nee na gëmul feebar bi di Covid 19 ba tax na mu bañ ñàkku maanaam vacciné wu nag ñàkk vacciné wu boobu moo tax. ñu bañ ko jox visa loolu nag jural ko ay tolof tolof ci biir këram mu xuloo waa këram euh, ak ay mbokkam euh, te it mu dugg ci naanum sàngara ndax am na xaritam yu ko gëmloo ni euh, booy naan sàngara doo amee feebar gi di Covid 19. fi ñu bàyyante woon nag altine bi weesu mooy du magam bi di Cheikh dafa feebar. Uh, muy sëxët yaram wi tàng uh, di metti waaye Modou Lank ne du ko yóbbu hôpital ndax uh, su fa demee euh, dañuy wax ni dafa amee Covid te su boobaa waa bi dañ leen di euh, di daw. Tey nag épisode tey bi ñu ci waxtaanee ñu war cee fekk Modou ak ay. Euh, xaritam ak ñoñom ñu nekk ci répétition kon docteur Fatoumata Anne da ngay nekk ak ñun ñu déglu épisode bi buñ ko dégloo ba pare ñu ñëw waxtaan ak yéen mooy fàttali nag auditeurs yi que mun ngeen déglu épisode bi bu ngeen dégloo mën ngeen woote bokk ci émission bi waaye nag ñun ñoo leen di woo da ngeen di euh, envoyé message ci sunu whatsapp bi euh, numéro bi di 77 424 94 73 su ngeen ci envoyé message ñu daal di leen woo ngeen dugg ci émission bi wax seen xalaat te it man ngeen dugg sax ci pièce théâtre bi bokk ak acteurs yi jouer ko da ngeen di tànn acteur bu leen neex ngeen remplacer ko jouer bokk ci pièce bi. kon nag nañu déglu Modou ak ay xaritam ñu ñëwaat waxtaan ak yéen. allez gars yi allez gars yi on marche on marche plus vite ñu marche ñu dox carrément plus vite plus vite plus vite gars ok nañ jàppante nañ jàppante deux deux deux deux gars yi nañu seere nañu mel ne kuy fecc blouse ah nañ seere bu baax jàppante carrément jàppante carrément gars yi nañu def nañu dem ayca ayca ayca mu gars yi ayca ayca ayca ñu bàyyante waat ñu dem ñu dem gars yi ñu dem dox dox dox mars marche marche ok gars yi en rang en ñu jël kii bi ñu jël daas bi ah paara daas yi xool cinq six sept huit ah gita gin taga gita gin gita gita tax gita tagin tagin gita gita tax gita tagin rythme rythme rythme gaay gita tagin tagin tagin gita gita tagin gin tagin tagin ñu dem eh tagi rek tagi rek reng tak tak tak gin tak tak gita toga ta wagin tak tak tak gin tak tak gita toga ta warang gita eh uragin uragin taragira ragira Rank tak tak tak gin tak tak gin tak tagin tagin gin tak agin tak tak gin tak tagin tagin ñu daan eh mais Modou def nañ ba suba léegi comme ça. avant ñuy ñibbi ñu def waxtaan bu ndaw comme ça ñu soog a ñibbi ah ok donc dama leen di remercier ndax xam ngeen ne moment yi ñu weesu nii xawoon na metti trop. mais nag alhamdulilah quoi gars yi fële ñu ngi leen di nuyu parce que président woote na démb nee na ñoom ñi ngi gérer affaire bi foofu noonu tournée bi mi ngi jaar yoon gars yi ñi ngi apprécier donc na xawoon na metti trop mais nag alhamdulilah rabil alamin yéen bàyyi woo leen moo tax sax moo ma motiver ma ñëwaat. donc nag dañuy jàppaat affaire yi delloowaat ko fi mu nekkoon respecté ko yeneen tournée mi ngi suñu kanam ah gars yi tout cas kontaan naa bu baax a baax ci yéen yow Pape comme ni nga ko waroon defee rek man maa la fi indi mais nag yaa ngi jàpp boobaak léegi taw a bàyyi dina baax incha allah ah. merci waay merci Modou man daal aw ma la daal di la wax jaajëf ndax man ba ma nee si troupe bi ba léegi yàlla xaw tax quoi man dama la sant di la gërëm l'essentiel bi daal mooy li ñu wax waaw na respecté euh, li xamante ne nii mooy règlement yi mooy nanu laa la bañ nuyoo in la raxasu surtout nag ba du demee kër ga nu xam ne noonu nuyoo xamit tamit ni noo nekkee kër ga ndax ba dul dara ñaa fa nekk ay mag laña te mag moom mooy loolu daal maa ngi laa jaajëfal. Pape yow bu la neexee mën ngay raxasu quoi parce que yow seen kër sa papa mag la sa yaay mag la donc mën ngeen di raxasu mais nag waaw jun moom sam papa man xam naa ne mooy moom moom mooy loolu quoi. jeune la ba pare dëgër na am na kàttan mu ngi doxal boppam soxlaam donc ñun ay raxasoog ay yooyu noonu moom nekkul suñu kii quoi. mais yow Modou raxasu bi ñëpp la concerné dañu ne règlement yi mooy bu ñu jugee répétition balaa ngay nuyoo seen kër na nga raxas say loxo ba mu set nga naan sama papa mag la xaw ma du mag loolu fan nga ko teg tegoo ko fenn li liñ fi tëral loolu dañ ñëpp ko war a respecté. kon yow moom taamu nga affaire yi yow daal ah sa maam mag la nga bëgg def sama waa kër ay mag sama waa kër du ñu ay mag yow sa maam mooy màgget. moom moo màgget instant yii nii a soxla loolu mais ñun soxla wuñu loolu ok. Moodu coronavirus bi su mu toll nii amul mag amul xale boo ñibbee seen kër da nga war a raxasu yow sànq ba tey ñoo ngi nekk nii di jàppante ñun ñëpp nga bëgg a ñibbee noonu seen kër nuyu seen waa kër. yow munoo ñoo dimbali munoo bàyyi seen affaire yii nii man suñu waa kër dañoo dëgër yow soxla wuñu loolu mais ñi soxla loolu mooy ñi nga xam ne ay màgget lañu. dañoo soxla loolu ñoom ay raxasoo jooy noonu ñoom ñoo ko soxla mais suñu waa kër soxla wuñu loolu. ci yoon sax fii salle de répétition bi dañ fee waroon teg ndox ak saabu balaa ñuy commencer répéter ñun ñëpp ñu raxas suñuy loxo parce que ci biti la ñuy nekk dox ba heure bu ñu neex soog a ñëw répétition ñun tamit ay nit lañ nekkul xale kase mooy am coronavirus mag ak ndaw ñëpp ñoo koy am. mais man Modou maa ngi jégalu ah parce que lii lépp man maa ko fi indi juste rek doon defar rek mais ba naree andi ay coow affaire yi demee nii. xam nga moo am ba des ku nekk na ñibbi këram après loolu dinañ ci waxaat. dama ne amul yow. yaa ngi dëgg la wax. non bàyyi dara dëgg la wax amul werante dara yow Modou. luñ fa tëralee nga dindi ko dëgg la waxante. bu dëgg jotee dañ doy na doy na doy na ba suba jàmm bu la mbooy ah waaw yow moom koddu moom yow moom ñàkk nga di ah nga jëlee sa ñàkk wu rëy wi maam damaa demoon répétition nag waa xaaral ma raxasu ba pare soog a ñëw raxasu nag koddu waa yow ko yow moom lan moo la tere nga nuyu ma lan nga may dawee loo may seexloo man a sa maam war nga maa seexlu nag koddu nag yow tamit nag maam yow tamit seexluwuma la yow xam nga ni coronavirus bi fu mu toll nii loolu kase moo tax il faut may raxas sama loxo yi ba mu set soog a ñëw mun a nuyoo ak yow te yow xam nga ni mag nga. feebar bi tamit xajul si yow loolu kase moo ndax. Ah, wax jaa ngay doog a am daaneel nag ah koddu kon man dangaa defe ne damaa coronavirus. man dama damaa coronavirus man koddu coronavirus suba ndax man fii laa ne ci kër gi génnuma coronavirus kañ ci yow la jekke man ah man daal maa ngi doog a xam ne kon nag koddu nag aha xale yi niñ may dawee ci kër gi kenn nangootu maa nuyu kenn nangootu la wax ak man kër gi ñi fi doon waxtaan si see sax ñëwatuñu nag koddu ci biir kër gi xam naa ne kon yow yaa leen tere aha kañ aha yaa leen tere nag koddu déedéet maam xam nga ne ñun li ñuy def nii yëpp ngir sa jàmm ak sa wér gu yaram moo tax ma ne xale yi ñu bàyyi jaabante bi ñu doon def ci kër gi ba pare képp ku lay nuyu mu lay nuyoo concom bu mënul wax salaamaaleykum mu nuyoo la noonu maam yow tamit ak at yi nga am nii loolu wóoru loolu kase moo tax maam. waaye ah, yow ma ne wutaloo ma jàmm ma ne wutaloo ma jàmm ci biir kër gi ndaxte ñi doon ñëw fi di ma waxtaan sil kenn ñëwatu fi nag koddu nag koddu doon koddu nag yow yaa ma teree nit ñi yow yaa bañ nit ñi ñëwatu fi nag koddu. <laughs> ma ne wooy ñëw koddu nee dama wiris ko waaye <laughs> wooy koddu nee dama wiris ma ne dag maa wax dama wax wiris. ma ne koddu ma koddu ma nag sa la woon ma yor sa ndey ba sa ndey jóge fi yor sa ba sa baay jóge fi nga ñëw fii nag ma yor laa ba nga toll nii nga toll nag naan man dama wiris koddu man nga man bul wax man koddu koddu koddu maam yow looy jooy maam yow man sa jàmm laa la bëggal nga nekk fii di woo waa koñ bi maam yow xam nga ni feebar bi xajul si yow ba pare nga naan ay coronavirus bii soo xamoon nu muy sonalee mag ñi ak xale yi yëpp si yem xale yi nii di ñëw si kër gi ñoo koy jëlee si mbedd bi ñëw andi ko si biir kër yi. ma ne ko du ma ne ya su bokkul ma la yàlla na ma yàlla àtte ak yow yàlla na ma yàlla àtte ak yow ci lii nga xamante ne moom nga ma jiiñ muy coronavirus gi man kon fan laa coronavirusé. man fu ma ma ne fan laa coronavirusé. ma ne amoo loo wax Codou bul wax ak man. maam jiiñ ma ne da ma ko ne Codou da nga ma ko jiiñ. dama ne dama ne la maam li ma la wax dafa leer dama ne damay bañ xale yi ñoom ñoo jëlee feebar bi si mbedd bi ñëw andi ko ci biir kër gi yow maam xam nga ni yow demoo ko kon kay yow feebar bi mun na laa bañ a dal waaye xale yi ñooy ñëw duñu raxasu bëgg di la jox loxo bëgg di wuufu sa kaw ñëw fii bëri fi bay bëgg a dee. loolu kese moo tax te man sa wér-gu-yaram maam laa la bëggal su ma sañoon da ngay dund ay at yu baree bari ma lay gis loolu kese moo tax te yow xam nga ni yow yaay sama xarit man yow kese laa am. salaamaaleykum papa naka mu bàyyi si jàmm. Eh, téyel sa loxo demal u raxasu ji la ma wax romb laa bidon bii si biti papa raxasu man ñi ñoo ko soxla man xale bu toll ne man et man dew ma woon fenn répétition rek laa jógee Moodu sama papa lim na wax dëgg la sa loxo yi danga ko war a raxas ba mu set surtout ci mbedd bi nga jóge te xataa xamoo ne coronavirus day jàpp mag di jàpp xale dama nga raxas sa loxo yi ba mu set waaye dëgër nga bopp torop papa gis nga soxna mii nii boo ko dégloo ay waxu dof rek la lay wax yow papa jantal paa nga instant ni soxla ay raxasoo yooyu noonu. dama ne eh déglu ma gis na gone gi li mu la wax dëgg la soixante-dix ans daa ko bëgg a génne si mag ala dem ala ñëw u bëgg ma fee andil la ma xamul. <laughs> papa yow instant ni soxla woo ay raxasu yow instant jantal paa nga yaa ngi ci pleine forme. Modou sama li mu lay wax c'est vrai. sa loxo yi da ko war a raxas ba mu set xanaa boo xalaatul sa bopp sax nga xalaat sa grand frère bi nekk ci kër gi te dafa feebar cher xanaa sax nga xalaat ko gis nga coronavirus day jàpp mag di jàpp xale demal nga raxas sa loxo yi ba mu set wecc. gune gi wax na la dëgg gis naa feebar bi daxaa jàpp mag la jàpp ndaw ba boo nag li mu la wax nii dugal ko ci sa bopp. papa yow dafa mel ne comprendre loolu ñu soxla loolu mooy paa yi nga xam ne dañoo dem ba màgget wala maire yi nga xam ne màgget nañu dem ba yor bant di ko doxee ñoom ñoo soxla loolu mais yow papa yow nekkoo personne âgée yow tamit nag papa instant ni xoolal yow ni nga mel xoolal rek papa yow foo bëgg a dem yaay doxal sa bopp macha allah dem ñëw mais yooyu noonu bàyyi ko màgget yi màgget yi nga xam ne dañoo dem ba màgget xoolal di yor bant di ko doxee ñoo ñëw soxla loolu mais pas yow papa. gis naa feebar corona bi bàyyiwul ka ndaw bàyyiwul ka mag ñëpp laa jàpp aw nag aala dem aala ñëw. xam nga la ma bëgg fi ndoy angi na bu naxaw ñaxa dama ne uddaku sangu ji la ma wax papa bu ñuy wax naan feebar bi dañ na mag mag la ñu wax mais mag bi ñu wax mooy mag bi màgget a màgget yow kay yàlla gën a dëgëral yax yi rek nga yàgg fi mais yow màggetoo de papa yooyu bàyyi ko xoolal màgget yi yow jantal paa nga dégg rek waxi dofam yi moo wax ah soixante-dix ans mën naa kaa génne si mag ah aw billaahi aw aw ba ma la toppee indi na ma suul yow kay papa xam nga instant boo génnee booy lan la ñuy wax jantal paa yow kay fi mu toll nii xoolal bàyyil waxu raxasu yi raxasu yi teg ko fële gis nga booy raxasu da ngay màggetloo sa bopp de bul nekk di gëm yooyu noonu ñii nii ay waxu xoolal ay waxu kasa kasaw rek lañ lay wax xanaa xamulaa ne set si jaamu yàlla la bokk même ba dul coronavirus bi sax daxa war a la set aw bi u jógee jóge sa répétition ba rek daxa war a jubal u sangu ba u set wécc u njëwu door maa nooyu waaye ala àgg rek jubal nooyu ma dama xam ndax andi naa feebar wala andiwu la feebar papa yow dafa mel ne déggoo tubaab personne âgée lañ la wax yoragoo bant bi bàyyil loolu rek wuy ma maa ngi sangu ji sax man instant yi nii mooy loolu quoi damaa xeeñ instant comme ni ko waxee aw daal Modou demal rek aw daal sol naal ma mbuba mu toolox sa mos rek u ne ne la ma bàyyi la mu wax rek loola maa wax waaye acca rek <laughs> jatal waaw fii la nag Modou toll ak waa këram ak euh, baayam déglu ngeen euh, fi ñu toll yéen a ngi déglu nag di diisoo ngir aaru fii ci rajo Oxygène 103.4 FM muy émission boo xamante ne théâtre radiophonique la Africa Check may leen ko ànd ci ak Théâtre for a Change ci ndimbalu kuréel gi di Google News Initiative ñu ci waxtaane nag mbirum mbasum Covid 19 ak vaccin yi ma leen di fàttali nag yenn auditeurs yi mën ngeen bokk ci émission bi li ngeen di def rek mooy yónnee message suñu WhatsApp 77 424 94 73 vingt 424 94 73 su ngeen yónnee message rek ñu woo leen ngeen daal di dugg wax seen xalaat ci émission bi tey su ngeen bëggee waxtaan ak acteurs yi wala sax remplacer acteur bu leen neex euh, lu ngeen di def rek mooy su ngeen bëggee dugg ci théâtre bi da ngeen koy wax ñu tegal leen théâtre bi en direct ndax acteurs yi ñoom ñëpp ñu ngi fii ci studio bi euh, bu ñu tegaatee ñoom dañ koy interpréter en direct su ngeen yeggee fi nga xamante ne fa ngeen bëgg a dugg ngeen wax stop ñu bàyyi leen ngeen dugg ngeen remplacer acteur bu leen neex acteurs yi nag seen tour yi lii la Cheikh Ndiaye Khady Fall Diaw Mame Mbodj Gaye Seynabou Diop Yacine Diop Mouhamadou Diol te épisode bi ngeen di déglu ki ko monté technicien bi di Fallou Sow euh, ànd ci nag ak euh, technicien bi di DJ Las kon ma bamtuwaat ko da ngeen di envoyé message suñu whatsapp rek 77 424 94 73 ñu woo leen ngeen bokk ci émission bi. %e nu ñu koy defee nag mooy %e su ngeen wootee ñu tegal leen épisode bi pour su ngeen yeggee fi ngeen bëgg a dugg rek ngeen wax stop ma fàttali leen bu ngeen waxee stop rek ñu bàyyi leen ngeen dugg ngeen remplacer acteur bu leen neex balaa may ñëw ci sunu invité bi euh, kii di docteur :fra Fatoumata Anne %e ma jox leen laaju ay bis bi ndax ay bis bu jot day am laaj boo xamante ne mun ngeen ñëw suñu page Facebook Africa Check ngeen di ci tontu laaju ay bis bi nag mooy euh, ndax Covid 19 mag ñi dong lay jàpp moo ngeen nag commencé tontu fu mu toll nii ngeen dem suñu page Facebook ngeen di tontu euh, ma fàttali nag euh, altine bi di passé laaj ju bés bi moo nekkoon bu seen yaram di tàng ngeen di sëxët sëxët bu métti yaram bi tam di métti lan ngeen war a def. amuñ ci woon tontu waaye nag tontu bi lii la bu ngeen amee yëg-yëg yooyu da ngeen di dem l'hôpital ñu daal di leen defal test ba xam ndax Covid ngeen amee wala beneen xeetu feebar la euh, may ñaax nag ngeen dem ci suñu page Facebook Africa Check ngeen euh, commencé tontu ci laaju ay bis bi ñu fekki nag suñu gan bi di docteur Fatoumata Anne mu ngi ci ligne bi moom docteur Fatoumata Anne may fàttali nag socio anthropologue la di jàngale ci université bi di Assane Seck nekk ca Ziguinchor docteur maa ngi lay nuyuwaat di la dalal jàmm ci émission bi. waa jot nga déglu sunu épisode bi nag euh, bu tey bi sama laaj bu njëkk mooy lan nga xalaat ci li nga déglu. Euh, dama donc bu ma continuer di def ci ñaar waxtaan dafay am solo ci wàllu lu ñu naan sensibilisation ak yedd léegi nag bu dee lu weesoo man li ma déglu ci théâtre bi sketch bi dafa am ay jàngat yu bari yoo xam ne mën nañ ko ci def benn bi ci njëkk mooy euh, li nga xam ne xalaat na ne daal non seulement coronavirus amul wante lu ci gën a jaaxal nit ñi mooy li muy insisté di wax ne que euh, mag ñi jàpp et que pap waajuram bu góor sax du mag noonu donc jarul ngay jël benn matuwaay moo du léegi euh, li ma si li ma si bëggoon wax foofu mooy euh, loolu nag dafa nekk problème boo xam ne ci depuis le début ñu ñu xam nga ñu coronavirus dafa yegg fi rek sunu fit yi dem ba tooguñu xool lan ñan lay um, nan lay nan lay nan lay évoluer bu ma ne ñun nag ñun ñëpp la nag ñun suñu askan nag ku Sénégal ak feneen ba tax nag li ñu kàddu yi ñu njëkk a wax nit yi mooy coronavirus mag ñi rek lay daal naan mag ñi moytu leen sensibilisation bi communication bi yëpp jëm ci loolu ba xale yi defee na ko ñoom mënuñu koo am te dafa mel ne Modou moom ci dynamique boobu la nekk ba tey hmm. waaye même Modou mooy dafa am foo xam ne dañ ko faa mooy dem nañ ba gis ne ndaw itamit tamit ñu ngi leen di laal bu baax a baax a baax te bu leen di laal sax dafay gën a métti ñi nga xam ne ñoom dañuy boole coronavirus ak beneen feebar mais ñi nga xam ne sax ñoom buñ dee ndaw rek mu mu jàpp leen ah, dafay dafay gën a métti dafa am sax gëstu xajkat yi li ñuy woowee ne que jeunes yi ay boule virale lañu buñ nee boule virale mooy ñoom mun nañu am bañ mun nañu euh, am feebar bi wante du ñu développé feebar bi xaw ma loolu nan laa koy mun a expliquer maanaam euh, maanaam jàngoro ji day nekk ci ñoom. waaye du ñu tëdd du leen sonal. te mën nañu ko wàll keneen. waaye nag mun nañ ko wàllu feneen moo tax sax ñuy wax nag boule virale. xam nga ne ñoom comme dañu mel ne ay kii daal euh, ñoo ci ñoom dem ci am na am na lu ñu seetlu ci wàllu Covid 19 bi te xëj na sax ci yeneen épidémie dina faral di am maanaam buy ñëw. nit ñi dafa mel ni ci askan wi ñu bari duñu ko gëm gisoon nañ fii lu amoon ci euh, Ebola euh, ci yenn dëkk yi comme Guinée wala Sierra Leone waaye ñu wax ci Covid bi fii ci Sénégal bu muy soog a am ba tey jii sax am na ñu bari ñu mel ni moodu nee nañu feebar bi du dëgg ñoom gëmuñu ko lan lan mooy waral askan wi ñuy amee genre xalaat yooyu bu épidémie yi di am. gis nga loolu lu koy waral moom gis nga feebar. balaa askan di ko ràññatle comme feebar dafa am fu muy jaar ñun loolu la ñuy woowee ci tubaab représentation de la maladie gis nga représentation nag lu buy buy am mooy day dem ba nga xam ne ñi ci nga xam ne ñoo ëpp ci askan bi xàmmee lan mooy feebar bi lan mooy signe yi maanaam xam nga sax naan yaa ngi naan yaram bi tàng naag yaram bi tàngul ak yooyu yooyu ay si maladie la il faut que askan bi xàmmee ko boobu mooy étape bu njëkk buñ ko xàmmee ba pare ñu xam lan moo koy joxe buñ xamee lan moo koy joxe ñu xam lan moo koy faj bu ñu ci bu ñu ci xam lan moo koy faj nañ buñ ko utalee tur loolu mooy tur boo xam ne day nekk turu olof boo gisee ñuy wax euh, paludisme ñu naan sibiru c'est que ñun xam nañ nañ lan mooy màndargay sibiru xam nañ nan nañ koy fàggandikoo xam nañ nañ mooy gis nga nag bu ñu demul ba nga xam ne askan bi collectivement dem na ba comprendre loolu ba nga xam ne ñoom dugg na ci seen ni ñu xalaatee du ñu du kii day day jafe ñu gëm feebar bi te xam nga benn affaire boo xam ne tam nekk na ci gis nga étape yooyu pour construire pour tabax représentation def ci am boo xam ne ci coronavirus bi dafa jafe mooy xam nga épidémie yi ci mun a musa am ñëpp du nga gis nit ki ne kii kat par exemple euh, boo ko xoolee màndarga bii ak bii ak bii dina tax nga ne kii am na feebar bi waaye li jafe woon ci coronavirus mooy dafa am catégorie bu bees boo xam ne ñun xamuñu ko mooy asymptomatique mooy ka nga xam ne nee la dafa feebar te gisuñu dara ci moom en fait moom yëgul dara ci moom ndax feebar tamit ñun fu ñu koy waxee ci wàllu sociologie wala anthropologie dafa am ay dimension yoo xam ne moom ngay jël mooy feebar bi ni ko nit ki di yëgu ni nit ki di xoolee nit ki ba ne kii dafa feebar bokkul nag feebaru docteur ba loolu moo tax ñu bari du ñu mun a gëm gëmuñu woon am na si ñoo xam ne sax ba léegi gëmuñu ko feebaru corona bi ndax boo waxee ñu ne la wax ñu ku corona nu mu mel ndax gis nga ku corona loolu benn aspect bu njëkk la. waaw beneen bi mooy li ñu ci wax nag dafa bari. gis nga liñ naan rumeur. ku dégg naa nii lañ koy defee te comme feebar dafa nekk feebar bu bees. Euh, boo xam ne ñu bëri xamuñu ko xamuñu nañ koy fàggandikoo gis nga affaire tâtonnement boobu tey ñu ne xam nga à un moment dañ ñëwoon mag ñi rek lay jàpp suba ñu ne xale yi il faut que ñu dem raxasu suba ñu ne xale yi sax foog ñu vacciné wu alors que au début dañ doon wax même ci priorité vaccination sax dañ ñëwoon mag ñi ak ñi am yenn feebar yi ñoom ñooy njëkk a vacciné wu finalement ñu ne ña njëkk vacciné gis nga nag làmbaatu boobu day indi jaa jéem jaaxal ci xelu nit. waaw docteur euh, ñu nga may ñu. Euh, ñu jël benn auditeur. waaye da ngay des ak ñun xam nga émission bi nag euh, dañ ko jagleel mhm. auditeurs yi mun nañ dugg wax seen xalaat kon nga des ak ñun ñu jël suñu auditeur bu njëkk asalaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi noo tudd. waaw maam Thierno. maam Thierno. maam Thierno maam Thierno Dieng fan nga dëkk. maa ngi woote waaw maam Thierno jot nga déglu épisode tey bi nag Modou ak ay xaritam ak ay mbokkam waa këram lan nga ci xalaat ci li nga déglu tey. waaw li ma ci xalaat mooy. Modou ku jar a dimbali la. ndax euh, Modou bu ñu dimbaliwul euh, moom bokk na ci nga xam ni euh, nekkul ci xeex feebar bi te jëmul ci feebar bi. kon Modou dañ ko war a jàppale jéem ko sensibiliser ba nga xam ne moom sax war na fee jugee ba mën a di sensibiliser ñeneen à travers sa groupe bi nga xam ne moom la nekk ñu koy ñu koy ñu ko ci euh, am na koo xamante ni kodd xaw ma kodd la ko ñu ngi koy ñaax mais moom dégluwul beneen bi aussi ne ñu koy ñaax mais dégluwul kon Modou man waaw kon maam Thierno. kon yow déglu nga li ma wax sànq soo bëggee dugg ni ngay def kon li ñuy def mooy. Euh, yow nga ne Pape Modou nga bëgg a remplacer ci pièce bi. waaw léegi li ñuy def mooy dañuy bàyyi acteurs yi ñoom ñu ngi fii ci studio bi. ñu bàyyi leen uh-huh. ñu defaat pièce bi ci partie boobu. léegi uh-huh. su ñu yeggee fi nga xamante ne yow foofu nga bëgg a dugg. yaa ngi ci ligne bi hmm. soo fay suñ fa yeggee rek dangay wax stop boo waxee stop rek ñu daal di la jox nga dugg kon da ngay déglu bu baax ba ñu yegg fi nga xamante ne fa nga bëgg a dugg nga wax stop bul fàttee wax stop nag ndax boo stop duñ la jox nga dugg de <laughs> donc da ngay déglu bu baax a baax bu ñu yeggee fi nga bëgg dugg rek nga wax stop dégg nga. waaw kon ñu bàyyi euh, sunu acteurs yi nekk fii ci studio bi ñu dem ci wàll woowu kon yow pàpp moodu nga bëgg a remplacer. ayca ñu dem waaw. Eh, salaamaaleykum papa. dama ne bal ma nooyu la ma wax. stop. waaw kon stop euh, Modou mu ñëwaat bu ñëwee rek yow nga remplacer baay ji nañ dem. waaw d'accord. salaamaaleykum papa. waaleykum salaam. sama naka jox ma loxo bi bokk. sant Modou. waaw doo ma nuyu waaw lu tax. ndax Modou xam nga tax du ma ah? xam nga lu tax du ma ndax Modou leer na leer yàlla ni feebar bi ñu ngi ci dëkk bi. coronavirus bi mu ngi ci dëkk bi. papa feebar boobu amul ah nit ñi dañ leen di sonal rek di leen wax ay wax yoo xamante ni. coronavirus amul léegi nag waaw. yar la ba nga màgg ba toll fii nga toll. waaw. kon nag bu ñëpp dee foofu ngir sama ma nekk ci seen bi représenté waaw laa ko waaw bi naa waaw. li ma bëgg ci sama kër gi moo fi am mënoo ko nag yéen jëflante à partir de maintenant lépp li nga xam ne wax na ko feebar bi. waaw. da ngay jël say matuwaay mënoo ko dootoo dem ci répétition dootoo génn ci kër gi. nga ne lan papa. dégg nga bu baax li ma la wax. papa xam nga lan la nag booy gëm sa gëm yow gëmal sa gëm man maa moom sama gëm gëw ma ne feebar coronavirus am na. beneen bi ci des kër gi yow moomoo ko. yow kër gi man maa def ëppale nga bëgg ma naan ay kii. yow kër gi moom ëppale moom la coronavirus amul ñii dañ lay bëgg a dofloo coronavirus amul. Moodu. Moodu France Espagne. waaw waaw i frontières. waaw ren toogal ñu dégg naa ne ñu ne xoolal ay milliardaires ñoom ñoo dajaloo pour bëgg a wàññi population bi ndax nee nañu dañoo bari loolu moo tax ñu créé naan ay feebaru coronavirus loolu amul de. jërëjëf jërëjëf maam maam Thierno ñu ngi lay gërëm bu baax <laughs> euh, pas allemand ndax moom ay ay luwaam ñoom tar na bokk. waaw euh, ñu ngi lay gërëm bu baax maam Thierno ci dugg bi ngeen dugg yéen auditeurs yi ngeen di déglu kon gis ngeen nu mu demee ak maam Thierno su ngeen bëggee dugg ci émission bi ngeen envoyé message suñu WhatsApp 77 424 94 73 ngeen dugg su ngeen bëggee remplacer benn personnage ci pièce bi ngeen wax kan ngeen bëgg a ñu tegal tegalaat leen pièce bi bu ñu yeggee fi ngeen bëgg a dugg rek ngeen wax stop ñu bàyyi leen ngeen dugg ngeen waxtaan ak acteur bi ngeen bëgg a waxtaan euh, ñu dellu fekki suñu gan bi docteur Fatoumata Anne euh, docteur am na lenn tamit ci feebar bi lu xaw a doy waar est-ce que loolu tamit bokkul ci li nga xamante ne moo tax nit ñi waxuma sax gëmuñu feebar bi waaye euh, peut-être dafay indi benn xeetu tiitaange maanaam bu ñu nee kër gi am na ku fa feebar ni ñu koy jël seek ak yi ñuy solo masque yi ak li ñuy wax quarantaine ak yooyu yëpp est-ce que nekkul loo xamante ne day dugg ci xelu nit ñi xaw leen jaxase ba tax na xëj na sax même bu ñu gëmee feebar gi dañuy ragal dem hôpital ndax dañuy bañ ñu wax leen dañuy am feebar boobu ñu daal di leen ber. loolu moom am na ci am na ci solo am na ci wàll bu bu am solo sax loolu moom la ñuy wax ni ñuy euh, xeetu beddi compte yi nga xam ne feebar mun na koo indi xaw mooy stigmatisation xam nga début moo tax ma ne la rek ñun suñu problème mooy suñu ay politique lu ñuy def dara bu mas ñëwee bu comme ñuy réfléchir suñu bopp te bañ a réfléchir ci tiitaange parce que bi dafa mel ne tiitaange moo amoon ñu daal di nekk di def euh, loo xam ne euh, ku feebar rek ku ñu ne kii feebar na buñ la testé ñu dem jëli la ba jël ka contact yi sax yóbbu leen ci ci hôtel yi ñooñu ñu mujj tëj seen kër yi bu ñu ñibbisee ñu naan ay kër corona ci ay yooyu alors que ñun boo boo xoolee ci suñu ay euh, valeur maanaam ci suñu ay aada ak cosaan ak yooyu mais munoon nañ ñëw waxtaan ak nit ñi ndànk ñëw jël si leen nit yi wala ñu ñëw testé leen parce que problème bi mooy loolu après mënul woon wéy fu ñu mujjee mooy du def prise en charge bi à domicile comme niñ ko waxee ñi nga xam ne dañ leen doon wax ñu isolé wu seen i ci seen i seen i kër te xam ne loolu day indi jaaxi jiixi jaaxa benn ñun dañoo gëm ne ku feebar boo demul hôpital yi nga dem ci ku lay faj mais munoo ne la da am contact kenn ku feebar ñu lay yóbbu hôtel loolu day jaxase xelu nit ñi léegi beneen affaire bi boobu xam nga comme li nga doon wax ku feebar am contact ak ku feebar xam ñu yóbbu la ñu yóbbu la ñu yóbbu la hôtel lool que boo gisee Ebola boo koy comparé ak feebar yi fi amoon par exemple Ebola xoolal ni def ci benn cas lañ fi am fi mu jaar ñu ñu daal di quarantaine sàcce ba da yëpp daal di tëj ñii nag ñu jël leen ne da ngeen nekk contact loolu dafa indi jiitu jaaxal ba finalement ñu mujj ko sax rectifier di wax nit yi bu ñu amee coronavirus sax ñuy toog seen kër mais lu si gën a métti mooy boo da ngay dañ lay jël yóbbu la ñu lay jël seen métti boo gisee ñuy sol ku leen gis ragal leen ah yenn saa ñu jiital auto police yooyu yëpp nag day yóbbu fitu nit ñi ba pare nag bu ñu paree loolu am na loo xam ne waxuñu ko te dafa am solo ci suñu suñu suñu suñu mooy euh, ni ñu doon en charge ñi nga xam ne dañoo gaañu ci corona yow da am sa dëj am sa naqar ak ne muy fii ñu ne la ak ah, comme corona la yéen mënoo leen dajaloo di dëj loolu yëpp na tax na même bu nit ñi gëmee sax am na ñoo xam ne dinañ gëm sax ne dañuy làkkatu wala ñu bañ a dem dépisté wu parce que tout simplement wala dem bañ a def test bi ndax dañ naan bu ñu moo ne am nañ corona non seulement que famille bi yëpp la ñuy stigmatiser mais bu fi am bu fi gaaño bu fi dara amee muy xew bu dee xew naqar nga xam ne da ngay soxla ay nit donc doo ko doo ko mën a def ci kii waxuma laak nag yi xewoon ci cimetière yi dem fan di ñëw bay war a nit ñu ne ambulance bi taxaw ak affaire yooyu mais loolu nag dafa des ci ci boppu ci boppu nit ñi ci xelu nit ñi euh, te euh, liggéey bi nga xam ne euh, waroon dañ ko ci war a def xam naa moo moo des ba tey moo tax nag il faut que ñu ñu dépassé stade boobu xam ne passé nañ euh, stade wu tiitalaate bés yooyu tey ku fi am corona tam waaw kooku mooy euh, docteur Fatoumata Anne di socio anthropologue muy jàngale ci université Assane Seck bu Ziguinchor euh, docteur nag da ngay des ak ñun ñu jël beneen mm-hmm. auditeur ma fàttali auditeurs yi nag yéen a ngi déglu émission bi di diisoo ngir aaru fii ci rajo Oxygène 103 point 4 FM ñuy waxtaane mbirum. Euh, Covid 19 euh, ak vaccin yi émission bi di am altine bu jot jàpp ko six ba sept heures ci ngoon ñu koy rediffuser dimanche bu jot euh, diggante onze ak midi ñu may xamal ni nag am na auditeur bu nekk ci ligne bi mbokk mi maa ngi lay nuyu. waaw noo tudd ak foo nekk ci dëkk bi. waaw Marietou euh, déglu nga sunu épisode tey bi mooy fàttali nag euh, sa intervention su la neexee nga wax li nga xalaat ci Covid bi ak euh, temu tey bi muy Covid 19 ak mag ñi waaye it mun nga su la neexee nga dugg ci pièce bi maanaam da ngay tànn acteur bu la neex nga daal di ko remplacer. euh, nga dugg ci pièce bi euh, ban nga ci bëgg lan ngay wax ci épisode tey bi. waaw épisode tey bi am na solo bu baax parce que dañoo jàpp ni coronavirus mag ñi rek lay sonal alors que comme nañ ko waxee ci pièce bi xale yi tamit euh, war nañ ci bàyyi xel bu baax léegi man nag partie bu ma gën a intéressé ci pièce bi mooy c'est la dernière partie dafa doon wax que. même bu dul feebar bi kese nit ñi war nañ set quoi. parce que mm. pour génn sa kër dem entraînement boo ñëwee raxasu moo war a nekk loo war a njëkk def même bu dul feebar bi. Mm. léegi feebar bi bu ñëwee nag dañ ko war a gën a dooleel. léegi kon da nga bëgg dugg ci pièce bi remplacer kenn ci acteur bi. non non non. ah kon yow da ci bëgg a yokk xalaat ah, waaye bëggoo dugg ci pièce bi. partie boobu daf ma neex quoi. waaye xam nga nag ni ma ko waxee soo soo buggee tamit nga dugg ci pièce bi euh, ndax loolu tamit loolu lañu boolee ci émission bi muy euh, loo xamante ne lu bees lu ñu indi ci émission yi euh, maanaam mun nga dugg xool acteur bu la neex nga remplacer ko joue pièce bi ak acteurs yi fi nekk ci studio bi ndax acteurs yëpp ñoom ñu ngi ci studio bi bu buggee dañuy teg pièce bi rek nga nga nga daal di ci dugg. kon bàyyi ñu teg. benn partie bi nga déglu Moodu ak Soxna euh, xëy na sax bu fekkee bëggee remplacer Soxna waaye li ñuy def mooy dañuy teg ñoom joué waat bu ñuy yeggee ci partie bi nga xamante ne bëgg nga fa dugg rek da ngay wax stop boo waxee stop ñu daal di la bàyyi nga dugg kon da ngay déglu bu baax ñu yegg partie bi nga xamante ne fi nga bëgg a dugg rek nga wax stop ñu ñu bàyyi la nga dugg nga remplacer Soxna waxtaan ak Moodu kon nañu déglu acteurs yi. salaamaaleykum papa. déglu ma la ma wax. sa raxasu ma. je papa jarul may raxasu xam nga ne raxasu mag yi rek ñoo ko soxla. Modou li la sama papa wax dëgg la soo jegee un traitement da nga war a raxas sa loxo yi ba mu set xanaa xamoo ne Covid 19 day jàpp xale di jàpp mag. yow da nga dëgër bopp torop. soxna xam nga lan la feebar boobu noonu mag ñi xoolal mag ñi mag ñi rek lay dal te mag yu màggetam màgget yi dem ba yor bant ñooñu lay sonal. ma ne Modou ngay wax da ko métti. waaw. Euh, kon ñu bàyyi la nag nga dugg. Modou lay tontu Modou yaa ngi jàllale xibaar boo xamante ne wóorul dara. lan moo tax wóorul. mu nare ay nit boo waxee ni Covid bi mag ñi rek lay sonal waxatuma la ñuy am ban. waaw loolu nit ñi buñ la toppee topp seen musiba. non mais yow yow xam nga bu baax que ni mag ñi mag ñi rek lay feebar di sonal. mais bu fekkee da nekk xale nekk xale boo xamante ne yow xale bu dëgër nga. am na ay xale yu ciy dee. xale yi. yow da ngaa mos a gis xale bu dee ci feebaru Covid bi yow. waaw gis naa ko. am na ñu rey. non feebar Covid sax amul dafa amul sax. gars ñoo fi nekk di wax nii ni rek ñooñu dafa fekkoon ñu feebar noonu waroon dee rek de. yow yow yow xoolal. soxna Modou bàyyi wax ma booy wax dara da koy teg fu wóor. xoolal boo boo demee Facebook wala nga dem whatsapp wala nga dem tiktok da ngay gis gars yi di def ay débat yu bari sax di ko dugal ay video di ko wax nee nañu feebar Covid existé wul déjà parce que tubaab bi ñoom ñoo créé benn feebar pour wàññi population africain bi parce que nee nañ ñun africain dañoo bari. xanaa xamoon ni tubaab yi mën nañ jaar fu nekk pour wàññi population bi ñun lu ñuy lekk lu bari ñu ngi ñu ngi fay jógee duñu xaar ay Covid bi nga xam ni ñëpp bàyyiwul benn population. moo la indi sa xel waaye. kon yow da gëm Covid. waaw gëm nga ko. parce gis naa ko. ah ok da ko gis. waaw. man de gëw ko wax dëgg yàlla. te damay seetaan damay informé wu nag. yow fan ngay informé wu. Modou yow da yow fan ngay informé woo quoi loolu laa bëgg a ah, xam. ah média yi média yëpp. yu nekk si dëkk bi ak yu nekkul si dëkk bi. ok jërëjëf jërëjëf soxna si ñu ngi lay gërëm bu baax dafa mel ni nag yow yaay ku njëkk koo xamante ni xaw nga. tax ba du am xel ñaar ci mbir mi kon nag <laughs> ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci li nga dugg ci épisode bi ndax moo du daa dëgër bopp maa ngi soog a dégg nag Modou xaw a hésité bu ñu ko waxee dara mu ne waaw ok te bu ñuy commencé ba léegi moom ku wax ak moom mu xul ak yow. jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax. ñu fàttali nag ni ngeen dégloo sànq mun ngeen dugg ci euh, pièce bi da ngeen di envoyé message rek 77 424 94 73 ngeen daal di dugg. euh, bu ngeen envoyé message ñu woo leen ngeen bokk ci émission bi ñu dellu fekki sunu gan bi di docteur Fatoumata Anne docteur beneen laaj bi ma bëgg laaj mooy mesures yi nga xamante ne jot nañ ko fi jël ci àdduna bi euh, fii Sénégal gis nañu ci wàllu euh, ak jéem a xelal askan wi dafa mel ni li ñuy def dafa mel ni askan wi dañ leen daal di forcer ay mbir yoo xamante ne doole gi moo gën a ëpp ci sensibilisation est-ce que loolu tamit taxul nit ñi xaw di bañ a ànd bu baax ci mesure yuñ ci jël. loolu moom leer na gis nga bu ñu nee respecter ay mesures de santé publique comme yi nga xam ne jël nañ ko ak yooyu. Euh, boo ci répression bokkee wala mu ëpp ci rek day indi ay fippu ak ay jiitu jaaxa sax parce que dañ naan waa kaay faju rek lan moo ci jaar lii loolu nag du lu bees du njëkkeewul ci euh, ci feebaru coronavirus bi mais dafa toll jamono boo xam ne nit itam dañu am léegi euh, quand même de plus en plus conscience ci seen ay droit ak seen ay liberté individuelle ba ci faju sax yow mënoo fet nit te neexu léegi nag bu ñu gisee ne ci corona ci xeexu coronavirus bi d' abord première étape bi ni ñu doon euh, comme ni ma doon wax ni ñu doon jëli jël ñu ci yeeg affaire yooyu euh, mais en plus ñu teg ay couvre kenn du dem kenn du dikk euh, pour au moins que pour yemale feebal bi loolu boo ko boo expliqué wul nit yi ba ñu xam lu tax ñu war a def noonu et puis surtout boo xoolee nag nombre de cas bi bëriwul par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañ daan for nit yi donc nit ñi mënuñu comprendre que ñu mun a yegg ci niveau boobu alors que ñun bokkuñu ci euh, amuñu amuñu cas xam nga bi bu ngeen fàttalikoo bi feebar bi di door a génn ñëpp africain yi lañ doon xalaat naan Afrique moom ñëpp a nar a dee ndax amuñu système de santé bu baax amuñu lii amuñu la léegi léegi nag faf loolu yëpp amul beneen wàll bi mooy donc euh, li nga xam ne ñu ngi koy gis léegi nii mooy li am ci vaccin mais même vaccin munoo ne naam baax na day tax nit ñi du ñu mun a du ñu mun a du ñu mun a am li ñu naan forme grave yi mais foog nga expliquer nit ki ba mu nangu munoo ñëw ne ko imposer parce que boo commencé di ko imposer rek day indi xel ñaar parce que léegi li nga li nit yi war a xam mooy lu xew feneen yendu Sénégal wala fanaan Sénégal donc nit ñi dañ dul déglu seulement li nga xam ne médecin yeeg euh, xel gëstukat yi dañ koy wax fii mais dañuy am yeneen connexion feneen yoo xam ne seen ay yeneen mbokk lu leen yu leen di wax ak feneen pour ñu gëstoo loolu nag il faut que ñu jël ko ñu jël ko ñu jël ko en charge effectivement ah, ni ñu ko kiiwee xam nga mesure de santé publique dafay ànd ak mesure sociale maanaam xool askan wi niveau bi mu toll ak fi nga xam nga waxtaan ak moom waxtaan ak moom waxtaan ak moom ba mu comprendre mais bi waxtaan sax daf cee amul woon donc euh, tëj nit ñi sans ñu comprendre pourquoi xoolal léegi nii ci vaccination ñi ngi commencé euh, di wax euh, affaire pass sanitaire boobu defe naa sax traité ngeen ko ci beneen beneen kii beneen épisode kii yi ngeen dool théâtre yi yi mais mais tey dafa nekk problème parce que bu fekkente ne Euh, dañoo dem ba ne ñun dañ koy imposer alors que euh, ñi nga xam ne vacciné wuñu motuñu million ñi ngi tuur ay kii moo tax il faut que ñuy xalaatal suñu bopp ñun tamit suñu ay politique ba xool en fonction de euh, feebar yi fi mu toll ci dëkk bi ni ko nit ñi di xalaatee te boole nit ñi niñ naan commune approche communautaire comme ñun ci loolu la ñuy doxee ci loolu moo ñuy aar ci yenn feebar yeeg yooyu ñu dugal ko ba nga xam ne Euh, waxtaan yee kii dina gën a mun a ñoŋ ba genre moodu yi loo wax wax tamit ñu mun a dellu si waat waaw docteur jërëjëf euh, ñu laaj la nga mayaat ñu tuuti ñu jëlaat beneen auditeur waaye da ngay des ak ñun ndax dinañ dellu si waat am na auditeur wala auditrice bu nekk ci ligne bi euh, mbokk mi ñu ngi lay nuyu. maa ngi ziar salaamaaleykum. dañu lay delloo ziar noo noo tudd. Ah, Baba si foo nekk ci dëkk bi. maa ngi wootee diwaanu Pikine. waaw baaba euh, déglu nga sunu épisode tey bi nag ci lan nga bëgg a àddu. waaw déglu naa euh, waxtaan bi euh, dégg naa tamit maanaam li ñu war a waxtaanee tey moo naan feebar bi mag ñi lay est-ce lay laal loolu dégg naa ko ngeen laaj ko. waaw bokk na ci laaj yi ñuy wax auditeurs yi nag ñu bëgg. ñu ñu mën a dem suñu page Facebook Africa Check daal di ci tontu dinañ ci waxtaan ci ay bis bii di ñëw waaye boo amee tamit xalaat boo ci joxee mun nga ko joxe euh, waaye li may fàttali auditeurs yi ma daal di la ko fàttali tam ma xamal la ko mooy que ni ci émission bi mun nga dugg wax sa xalaat te it mën nga duggu su la neexee nga daal di remplacer benn personnage jouer rôle am en direct ndax acteurs yi ñu ngi fii en direct dañuy jouer pièce bi suñu yeggee fi nga xamante ne fa nga bëgg a dugg nga wax stop ñu nga dugg nga remplacer personnage bu la neex euh, yow daal yaay tànn ci nan nga bëgg àddoo ci émission bi bu fekkee dafa am personnage boo bëgg a remplacer rek nga wax ñu ko ñu daal di la dugal ci émission bi. ok waaw déglu naa déglu naa euh, Kodou déglu naa Modou ak Pape suma juumut. ak mais ci communication. koddu fa laa bëgg a duggee mooy ci salle de répétition bi ak muy waxee ak maamam di ko convaincre ci ci affaire Covid kon ci ci salle de répétition bi nga bëgg a waxee wala fii koddu di waxe ak maamam. ñaar ci salle de répétition bi ak ci muy waxee ak maamam. ok kon li ñuy def mooy ñu commencer ci salle de répétition bi. kon li ñuy demee mooy euh, dañ lay tegal pièce bi. Euh, hmm. partie boobu acteurs yi ñu ngi fii ci studio bi bu ñuy wax. nu yeggee fi nga bëgg a dugg rek da ngay wax stop boo waxee stop rek ñu bàyyi la nga remplacer koddu dégg nga waaw kon nañu dem. mais Maodo man damaa amee seen xam nañu def dañuy jaar fii ñu arrêté kii bi quoi répétition yi ñu ñibbi ba suba quoi d'accord mais balaa ñu ñibbi nag bëggoon naa ñu def benn waxtaan bon di leen jaajëfal quoi ndax xam ngeen ne affaire yi metti woon na trop mais tamit xam nga jàpp ngeen boobaak léegi xam ngeen ne bon. période bi période bi ñuy weesu xawoon na tar mais nag alhamdulilahi rabil alamin xam nga gars yi woote nañ téléphone sax président nee na ñoom tournée bi foofu mi ngi jaar yoon xam nga ñi ngi ciy nekk di di ko jàpp muy kii quoi yow nag Pape mooy loolu quoi boobu léegi yaa ngi jàpp ko non ndax man ba ma man dama am daal lu di di wax ne rek amul problème lenn rek la ma bëgg mooy daal ñu jël nuy matuwaay ban demee kër ga du la raxasu waaw ba set. xoolal xoolal pap xamala la non yow sa papa mag la yéen di ngeen soxla ay raxasoog affaire yooyu noonu mais xoolal man moom sam man sama gaale soxlawuñu loolu quoi. yow Modou lan mooy sama gaale soxlawuñ loolu yow mën nga ni lu ñu tëral ci saal bi rek. ay ca boog moo Modou lan mooy suñu soxla wuñ loolu. yow mën nga ne lu ñu tëral ci saal bi rek nga dindi ko yow salle de répétition bi boobu léegi ñu ngi téyante seen yaram yi di normalement fii war nañ foo teg li nga xam ne moom moo di ndox ak saa bu ñuy raxas. te waxuma la ci saal bi rek. xool nga rassemblement yi aaye woon nañ ko te léegi bàyyi nañu delluñu fépp fu mbooloo nekk war nañoo jël li nga xam ne moo di matukaay yi maanaam jël distance bi bi di war ba pare di raxasoo ak saabu ak ndox bu ñu jógee ci li nga xam ne ni moom moo di répétition yi ak bu ñuy dem ci mbooloo yi nga xam ne fi la mbooloo yi daje comme que benn benn nañoo toog suñu kër ba président wala gouvernement bi nangu ñu léegi ñu daal day ànd mais ngël bu ñuy ànd yi nañ jël disposition yi war waaye yow Modou kenn mënu laa wax loo def waxuma nga bi du dal seen waa bi daa bàyyi kenn xoolal coronavirus si boppam moo amul xoolal gars yi dañuy yàqoon suñu liggéey tënkuñu tëj ñu ah di créer seen feebar boo xam ne amul benn solo amul benn sens naan ay feebaru coronavirus yow da nga gëm feebaru coronavirus dafa am yow. da nga ko gëm kay. da ko gëm yow da nga mus a gis ku mu dal. an kay ni ñaa ngi wane ci télé yi. waaye ban wane ci tele bi gars yi di teg di di dóor seen dóor nga naan ay ay kii xoolal amul gars yi dañ ko teg xoolal pour wàññi population africaine bi. bëgg ñoo néewal doole loolu la ñu bëgg def mais ñun loolu duñ ko nangu. yow daal yaa ngi ne lu wax rek am nga loo fa xoolal sa xam nga lan la man ñi sax xoolal ñoom dañoo feebar ba pare li leen di dal du coronavirus donc ñoom ñoo war a moytu di ñàkk set ak affaire yooyu noonu mais ñun ay ndaw lañu dëgër ba pare ñun ñi ngi nii balaa ñuy def suñu répétition dañuy entraîné ba ñàkk tooy xepp kon ay coronavirus du ñu dal loolu amul existé wul. yow da nga gëm loolu coronavirus bi xale bàyyiwul mag. non dafa existé wul sa waay yow wala boog nekkatoo ko yow ngay réel nekk boroom kàttan waaye yow di ñaq di génne suukar bi ngay ragal ay affaire yooyu noonu da ngay ragal loolu yow. yow daal li ñëpp ragal daal di teg loxo. day reyam du reye day maatam du maate bul jege. kon yow noonu nga ko gisee quoi. noonu laa ko gisee kay. non mais loolu xoolal xam nga léegi lan la dañuy ñibbi sax ba suba loolu demal nga teg ko sa gaale quoi ñun soxlawuñu loolu dégg jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci dugg bi nga dugg ci émission bi. Euh, ak euh, interprétation bi nga def ak waxtaan bi nga waxtaan ak moo du merci beaucoup. Euh, ñu dellu nag ci euh, docteur Fatoumata Anne. docteur beneen laaj bi ma la bëgg laaj mooy dama bëgg sax ñu xaw a dugg ci lu gën a sori ak ci sa wàllu liggéey mooy bu ñu seetloo tamit nit ñi boo seetloo ci ci ci naa ko jël ci exemple Sénégal mais xëj na sax ay dëkku Afrique yu bëri boo seetloo. ak Covid bi xëj na sax avant Covid bi ci yeneen feebar ak yeneen garab dafa mel ni euh, nit ñi dañuy moytu bu baax loo xamante ne day jóge ci dëkk tubaab yi ci wàllu wérgu yaram euh, est-ce que tamit amul loo xamante ne. xëj na dañ ko jëlee ci mbiru histoire parce que am na euh, li ñuy wax industrie pharmaceutique mais tamit yenn recherche médicale yoo xamante ne jot nañ koy def fii ci Afrique ci temps colonisation ci ay anam yoo xamante ne yu doy waar est-ce que loolu tamit bokkul ci li tax nit ñi di am xel ñaar ci yenn euh, feebar yi wala yenn garab yoo xamante ne ci dëkk tubaab yi lay jóge en fait euh, ñaari ñaari fànn la benn bi mooy euh, effectivement ci histoire am na yoo xam ne euh, nit ñi kiiwuñu ko fàttewuñ ko mais tey dinaa la jox benn benn misaal benn exemple benn gëstu boo xam ne defoon nañ ko ci garab buñ doon buñ ñu ne woon moom moo naroon aar dëkku africain yi ci Euh, maladie du sommeil feebaru nelaw bi mais nu mu mujjee ci ay intervention kenn xamul nu mu toll kenn waxu ko benn historien de la santé bi na mais li ma bëggoon wax foofu mooy gis nga kiiwu coronavirus dafa am li li njëkk mooy ci waxtaan bi li ñuy wax nii rek gis nga euh, xam nga dañoo ne woon Afrique moom bu ñëwee corona coronavirus bu fa duggee ñëpp a dee nag loolu amul loolu déjà loo xam ne jaaxal na nit ñi ñu commencé di gëstu naan euh, il faut ñu dem seet yi lan mooy euh, lan moo tax euh, lan moo tax Afrique muy Sénégal ak yeneen réew yi kii yi dëkk kii malade yi ameewu ci noonu doole mais dafa am yoo xam ne dañ koy fàtte te loo xam ne jëluñu ko en compte ci gëstu yu bëri yi ñu ciy def mooy li nga li nga xam ne moom la nit yi di waxee li ñuy li ñuy wax ñun ay religiosité ak système de croyance gëm ak euh, ci ak ak euh, di système de croyance yoo xam ne daal. ci gëm-gëm daal. mbiru gëm-gëm daal nga xam ne non seulement dina ñu dina ñu ci lu bëri li nga xam ne lu dem dañuy xalaat ne non seulement dinañ ne waaw yàlla la mais euh, ñu may xamal ni waxtu wi jeex na ma lay may ma lay ma ñaan nga baal ma nag ndax mbirum rajo moom dafa doy war <laughs> heure bi jot na mm-hmm. may fàttali auditeurs yi nag yaa ngeen ngi doon déglu diisoo ngir aaru fii ci rajo Oxygène 103 point 4 FM ñu ànd ci nag ñu invité tey di docteur Fatoumata. Hann nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor ñu koy gërëm bu baax ñuy gërëm ñëpp ñi nga xamante ne jot nañu dugg di baalu ñi nga xamante ne amuñu woon jot woo leen émission bi nag ñu leen di fàttali théâtre radiophonique la ñu leen koy may Africa Check ak Théâtre for a Change ànd si ak Google News Initiative ñu ci waxtaanee mbirum mbasum Covid 19 ak vaccin yi. altine bu jot jàpp six ba sept ci ngoon ñu koy rediffuser euh, dimanche bu jot onze heures ba midi euh, ñu fàttali nag euh, ñu ñu àndaloon ci émission bi acteurs yi di Cheikh Ndiaye Khady Fall Diaw Mame Mbodj Gaye Seynabou Diop Yacine Diop Mouhamadou Diol technicien bi di Fallou Sow ànd ci ak DJ Las ki nekkoon ci micro bi nag di Samba Jalempa yi ñu leen di dig daje altine bi di ñëw